mbeuru Medina yi jël nañu ay combat yu bare bare bare ya ubbi won bal bi malheureusement ñak nga sarak day ñew euh mbagnik bala mbañik bébé jéene ñëk ñëw dimas sëriñ Ndiaye numéro 2 tamit mok mbañik ñoo bokk benn bës bu afiya suma jumul amna combat caatu Medina yaay rek ñoo ñoom ñëpp am combat alias Diène waaw. waaw abada waaw abada ñoom waaw ñoom ñoom ñu ngi paré sante yalla ak benteñe ak benteñe parce que benteñe équipe euh, waaw non sama way la ati jobo ko entraîner jeex na mooy loolu maa ngi koy jóge baax baax waaw sante yalla rek di leen ñaanal ay ndam waaw parce que ñoom buñu amé ndam man ma am ndam buñu amé ndam Medina mo am ndam comprendre nga te wóolu nañ leen waaw affaire yi chaque année noonu lay demee day neex si ñii suba mu demee na le mais nañu nangu rek waaw nañ nangu waajalaat incha allah saison bi soreetul waaw léegi ñu amaat beneen ñoom ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp incha allah ñoom ndam waaw. Serigne loo koy wax moom. ah waaw Coriace kooku kooku amul lu ñu koy wax. <laughs> waaw combat de wax mooy mbër moom tànk daanoo mënoo ko. waaw conseil boobu rek lañ ko jox waaw jox ko cër respecté ko waaw dañ ko mën ba pare incha allah yow yootal nank xam nga def fu laak fay da jàpp ko daan ko ñibbi. incha ah, allah da ngaa mu yot Bébé Saloum. ah lay demee. mbër yot ko jafe yot. ah la mbër da ngay yot rek yot bi incha allah ñu ngi koy ñaanal daal yàlla may ko ndam. Bébé Diène itam loo koy digal moom. waa moom it wax laa koy wax rek. waaw mbër moom tànk daanoo ko mënoo ko. waaw na def nank rek ndànk ndànk jàpp ko moom moom xam na sax moom moo ma gën a xam. Hmm. waaw vraiment am na lu leen metti nag ñoom ñëpp sama combat bi waaw dafa feeñ sax si ñoom xam nga ñoom naqar mais li ma leen wax rek loolu laa leen ne la lii la yàlla tudd yegg si na jàll na nañ ko fàtte sinon boo fi nekkee di métti lu mooy loolu jëmale suba li nga waaw waaw jàll na jàll na ñun métti woon na si ñun mais yàlla def na ne essant yi passé na Bébé Diène moom mu nga nekk xale parce que yéen ñaar xam na bu ngeen magante bariwul mais ngay bëre mu fekk la si làmb dem ba tuddal boppam tey yegg si niveau bi mu yegg si tamit loolu lu muy def ci yow Bébé Diène loolu fierté la vraiment fierté la parce que ba muy débuté suñu kanam di góorgóorlu xam nga waaw yàlla di ko dimbali ba tey mu yegg si fii dafay effort jaayante ko nag waaw doon xale jaayante ko vraiment dañuy ñaan yàlla musal ko ci cat ak làmm ñi rek carrière bi continuer incha allah waaw. jënd xam na bombar ji. waaw xam naa ko bu baax a baax. xam nga rëg-rëg tamit. waaw xam naa leen ñoom ñaar ñëpp. combat boobu noo ko gisee grand contre petit de. waaw grand contre Brésil nag combat bu neex la. Hmm? waaw combat bu neex bu compliqué tamit. Ah. waaw. lu tax nga daa compliqué ak lu ko compliqué. waaw ndax ñaari ndaanaan ñooy daje. ñoom ñaar ñëpp bu ñu xeexee mu metti bu ñu bëree mu metti. bu ñu xeexee day bu ñu bëree day metti. waaw loolu moom amul sax dem te ñëw. am na koo ciy moytuloo xeex wala koo ciy moytuloo bëree bu bëri bi. non hmm. waaw. naa ne ñoom ñaar fu ñu toll moom amul amul xalaat. waaw hmm. waaw ku ne na ñëw xam nga def li nga yaakaar rek yàlla may yàlla may la ndam waaw di leen nuyu ñoom ñaar ñëpp di nuyu Bombardier itam sama père la moom sama père la di nuyu Reug Reug aussi champion la waaw uh-huh. tey yow ba doon bëreeg sa père boobu Bombardier maa ngi koy nuyu en euh, xam nga faiblesse am no bu ma xamoon tamit dina ko wax fi <laughs> no waaw dama la laaj rek ndax xam nga ko da man waaw wala wala déet. no no no non wax deug yalla xawma ci mom ben faiblesse. Ah. waaw waaw xawma ci mom en tout cas daal champion la. su arbitre souffle won ngeen ah dagg yak mo moom ngeen jàkkaarloo. Mm-hmm. no mais xam nga fi nga wara jaar bu combat bi jalle après nga ñëw ñu wax ci. Ah. waaw mais ni ni mom gaayen <laughs> Reug Reug nak mom bu ngeen jàkkaarloo woon. waaw mom champion la. xam nga fo wara jaar. no période bi déggoo ma doo wax ci combat ken parce que semaine combat lañ ne xam nga. waaw ñom waaw li ma leen ñaanal dal moy jam ak salam ah. ñom jàmm bu bëri salaam bu bari ñu ñëw xam nga bari ko mu rafet ñëpp kontaan waaw la vie continue. <laughs> niveau bi daal bu waaw maa ngi koy bëggee xam nga ah, waaw man dama koy topp di ko bëggee di ko suivre bu baax a baax di ko waaw di ko bëggee daal. Hmm. bu borom baax la sagu làmb la sagu làmb la waaw mu ngi bëggal sénégalais yi xam nga wane ne mu ngi wane beneen facette ci mbër waaw. Hmm. comme moom ak Tafa xam nga ne taxaw na. waaw taxaw na boobu nag suñu père lañ àndal dafa xam naan dina leen jeexal ñoom ñoom eh, bu dina dal sa kaw de waaw waxee lii <laughs> bokk Ndakaaru mooy loolu di ko ñaanal rek waaw <laughs> Sa Thiès moom it dinaa laaj de parce que maay laaj non non non loo jël ci saal maanaam ci saa waaw saa moom it ñeme ñeme entraînement waaw bokk nañ saal moom it loolu gis nañ ko moom quoi non bu baax gars yi ku xam naa la ñeme na ko bu baax baax di champion tamit waaw di bërekat. Mhm. waaw. mais ñooñu ñëpp yaa ngi xalaat euh, euh, fi mu nekk nii yaa ngi upp yaa ngi upp fëgg seen bunt. ah waaye kon boobu bu ma leen bu ma ko fëggul kay ma bàyyi dem defi leneen waaw mbër lañ lépp lu ne si ñoom yàlla xam na ne mu ngi ci man waaw wax sa baax waaye nag waaw mënul wàññi sa wax dara waaw mais teewul qualité yu ne si ñoom mu ngi si ñun uh-huh. waaw làmb nag nii la léeg xam nga yàgg na daal champion. fu mu gën a yaakaaree ne tey lii ki xam nga mu daanu. mais waaw fu ñuy xamee ne metti na la sa sa waaw. na solo euh, looy tàggoo ñu lay seetaan ci Dakaractu et puis looy wax équipe bu Dakaractu tamit. waaw Dakaractu moom xam nga gis nañ yokkute fan yii a rafet mooy mbër di bëre nga dem direct man lay toog chaque jour di la seetaan kër mbër yi nga xëy gérer di ko toj xam nga <laughs> ma toog sama ruq la suivre. waaw vraiment gis nañ yokkute bu baax a baax yaag sa caméraman bi di ndaanaan moom Cheikh Omar yàgg ci affaire yi ba ma ko dalee xàmmee moom it yàgg na Cheikh Omar waaw a a kanam waaw di kontaan si yéen di kontaan si sama gars yi yëpp waaw su ma sañoon nag nga ñu sànni ci xam nga ay kàddu waaw mais Diène marié na non non non Diène gul nag waaw Diène may mais xam naa ne yàlla na jéen célibataire waaw célibataire jéen la am na solo mais mais aja aja waaw loo ñu laaj loo ñu bëgg a laaj yéen yéen yéen a ànd ak mbër mi jóge na si combat yàlla dogal na ñàkk na komba bi mais dafa mel ni tey ngeen a gën a jàpp tey tey ngeen gën a wane seen bopp ci moom lan moo leen may courage boobu ci jéen lu mu leen wan la wala lan la waaw parce que moom lu mu ñu wan la quoi waaw rafet waaw waaye jën daal kenn xamul daal ban façon doomu aadama la waaw dafa nekk si biir mbëri rek waaye maanaam waaw daal wàlliwu la daal si biir mbëri barki Serigne Touba comme ni ko gars di waxee moom yaram moo ko may lii yëpp man Zarko ak kii nii Diène man dama àndal Zarko dem supporter ji Zarko kii kañ Ada Fass boobu ah, kii laa àndal Zarko laa àndal dem ba mu jeex man a waa Medina mais Diène kii lu mu ñu wan la xam nga ak lu mu bokkal ñun xar yàlla bokkal jàppal gars yëpp benn barki Serigne Touba moo tax nëbbu ma ko dee àndalu ma woon Zarko jéen laa àndaloon ba mu jeex taax waaw moom laa àndaloon ba mu jeex taax barki Seydina Mohamed parce que yaram moo ko moo ñu waaw moo ko may lépp lu mu am rek yaram moo ko may billaay wallaay taalaay. tur la. tur bi Souleymane la. Souleymane Ndiaye waaw dëkk xar yàlla waaw borom xar yàlla mooy nii. marama kéem waaw acca yow loo ci bëgg a ku si nekk si turam ak santam man Cheikhouna Cheikhouna Camara waaw di wax au nom de la zone 4B di wax ci zone 4B bi laay waxee quoi l' ensemble de la zone 4B ñu ngi gërëm ñëpp zone 4B bi lu ko dalee ci Derklé Castor Jëppal Liberté 4 Liberté 6 Yelitaare Djibo yoon wi gars yi ñu ngi leen di bëggee gis nañ seen taxawaay di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy fans club Diène sans frontière ñu ngi leen gërëm bu baax gis nañ mobilisation gis nañ taxawaay bi waaw di ko jiital nag si nuyoo bi suñu président muy ak suñu présidente Adama Fall di wax ne liggéey bi nag dañ koy gën a continuer na ñun champion bi nekkul tey lañ commencé ànd ak moom grand ba petit la dafa yàgg du tey ba bii ba muy bëre mbapat ba léegi ñu ngi ànd ak moom kon tey li koy gën a ñaax rek mooy gën a yokkaat entraînement yi gën a góorgóorluwaat di wax ñun ba tey ba suba ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci ginnaawam. prochain combat mobilisation bi dina gën a yokk wala. mobilisation bi day ëpp li day ëpp lii ñun kenn ñun ñun kenn dàquñu mobiliser kenn dàquñu mobiliser laa lay wax kon gars yi nañ ko ñëw jël. seen xel ci kan la ne. koo koy jox kan Siteu na ñëw ñu bëreeg moom. Siteu lañu soxla Siteu ñun duñ fi nekk di wër-wër ñu may kenn sax duñ ko may sax di may kenn code wala di may kenn kii waaw duñu ko loolu sax du woon yoon sax ñu koy wax. mais ñu ne ci kaw du Siteu kese ñu ne ci kaw ñëpp nañ ñëw may ko sansam yéen saa saa ñu wax rek ngeen ne Siteu da ngeen ne Siteu daa yomb mais nañ ñu jox am na ñu gën a weex Siteu ñu fi ne ñu jox ñooñu Siteu sax dégg naa ko moom ak Balla Gaye léegi mu taxaw da daa mel ni kan Siteu ak Balla waay waaye Balla Gaye kon sa waay nu nga ko waxee sànq rek janti suuf tànk suuf yàgg-yàgg dañuy daje euh, Adja maa ngi lay nu di la ziar maa ngi lay fay sëñ bi. tur bi nan la. aadama Fall. yow loo occupé ci Diène rek man maay na bokk wala. Diène Kaïré suñu frère la suñu mag la. baax yaay présidente bi. man sa waaw ah, maa maa géré section féminine bi. Ah, section féminine bi nga fii ci Derkel. waa fii ci Derkel. Ah, combat bi nu ngeen ko préparé woon. ah def nañ ci luñ ci man def nañ suñu doole ak lu ñu mën lépp parce que Diène daf koo jar nekk suñu frère baax yaru macha allah ñëpp wax ko. def nañ lepp luñ ci war di gërëm ñi ñu jàppale ñëpp sha allah. jàppale nañ leen daal waaw bu baax sax. Euh, kere bi jën daano loo yëg. ah méttit rek. billahi metti rek. Hmm. waaw mais ya reer nga wala reeroo kere. <laughs> non reeru ma nag <laughs> reeru ma dekkiwu nekki wu <laughs> dédé légui bo amul message boy sanni jën par rapport ak suitu carrière am lan lay doon. ah yokku jom rek yokku jom yalla baxna yalla lu mu def rek da fekk lu gën. mu mënoon na daan am leneen lu ci xew mais yàlla baax na ci kaw ca kanam rek jën lu baax rek lay am waaw. koo bëgg mu bëri lee koo koy jox. a ah, man Siteu laa <laughs> te ku ñëw sax baax na mais man Siteu laa gis ñu ñëw jël bakkanam. maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. yéen di jël seenam sët la daa mel ni. wallaay suñu sët la kay ñooy bàjjanu papaam. ah yaay bàjjanu papaam. bàjjanu papaam laa de. Hmm. wallaay yàlla sedd na ko. ndeysaan. kër mu bëree combat yàlla dogal mu ñàkk ko yaay. feebar Ah? man de sama lal bee wàccu ma ko yàlla seede na. bis boobu bis boobu. waaw dama feebar ba léegi sama bët bi sax teguwu ci dañ ma ko expliqué. ba ko tey seetaanoo combat. wallaahi seetaanagu ma ko ndax sama xol bi dafa metti sama kër gi mel ni nit moo fi dee. Oh. parce que jéen man bàjjan laa ci papaam d' accord. nit jëmm jee ko yóbbu may barki dem boo njaay la biñ waaw biñu bi ñu koy ngént fii ci Medina mi ngi tey mel ni tey ci man waaw waaye nag bisu ñàkk du bisu am waaw bisu am itam du bisu ñàkk yàlla na bisu amam ñëw yàlla indi combat bu mbaax hmm. yàlla may ko ci ndam lu sedd guy ba lu ñu metti woon ci bii ñu kontaan ko ca bee di jaaxi nabi Moustapha waaw yow xam nga mbëri do mbëri ah li ma ci xam ne moom wax dëgg yàlla taxu leen a bëri loo hmm. wallaahi koo bëgg jën bëreel dama <laughs> ko yaram sitta <laughs> man daal ko man daal ku mu mën a bëreel ak mën a toll yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla yëkkati teg ko ci kaw kooku muy ndam lu sedd guy lu mu bëgg ci bëre yi muy bëre yàlla na ko ci yàlla may lu kawe njortam ba lu ci nawle mbërëm yëpp amu am ci lu ko am ci ay këram am ci ay oto am ci wërsëgam bu yaa ca seel jaahi nabi man daal dama koy ñaanal fu ma toll dama koy ñaanal Birago sax bu doon ak moom du ma bàyyi ndax Birago fu mu turne ñoo ne mbaa yaa ngi man ko toujours <laughs> façon ñaan bu nekk ñaanal naa ko li ñu tur bi Khady Diop Khady Diop waaw am na solo maam yow man Tànday laa tudd di seen maam ah, maamu géen maamu géen laa géen baax lool yaru lool am respect man su ma ko gisul rek du maam am bu dee bëree du maam am jàmm mu baax lool nag am ci man respect bu mat sëkk yaru teey du yéenewu ma ko lu dul jàmm ak salaam yal nañ yàlla defal jàmm ak mboole mu jullit li mu yóotu yal na ci jot ndax gone gu teey la ku réglé newul di sal jariñ ñi lu mu def du def dara daal mi ngi réglé teey réglé xam boppam yal na ko yàlla defal jàmm ak mboole mu julit man mi ñu fekk ni man mii maamam laa waaye buy bëree du ma am jàmm hmm? du ma lekk du ma naan waaw ndax maay maam te mu ma bëgg ko mu jox ma respect su ma sañoon nag saa bu ma xëyee gis ko hmm? waaw waaw saa bu ma xëyee gis ko su ma ko gisul sax léeg ma gis ko ndax xam nga day sët bu baax bu am yar am respect du sensé mukk ni mu mel noonu la yàgg na ci moo tax buy baree du ma am jàmm kon de keroog xanaa bi nga déggee ne daanu na damaa dem du reeru ma sax ndax sama xol bi naqadi xale yi di ma ñaawal ah. hmm. waaye nag ya waaye nag yàlla pexe ak jaamam dogalam xëy na nag loolu moo gën bii ñëwaat nag mooy dàq moom gis nga moom mii génn mii jàmm rek lay am parce que yaru na teey na xam na ni muy waxee ak mag yaakaar naa daal bu dee dëgg nga bëgg a dégg lii nice na trop ñu ngi encouragé waat Diène ah jéen ñu ngi lay encouragé waat defe naa ne lii moom mhm. lu lu am solo la say nit parce que lii c'est pas facile et puis cité bi ni mu mel nii ñëpp génn ngir yow lii tamit yaakaar naa ne lu neex la ci xol boo amoon tey loo leen di delloor wax leen ko et looy wax say supporter rawatina tamit waa diaspora bi ñu ngi lay bëggee bu baax diaspora bi dañ lay bëggee dëgg la waaw diaspora bi di leen nuyu rek xam nga waaw di wax ne ñoom man ak ñoom ñoo far tukki moom yombul waaw tukki yombul tukki metti na am Sénégal moom xamuñu mais tant que demoo mënoo xam amuñu vie amuñu dara waaw foo leen fekk ñu ngi liggéey daw ak a ñëw ngir xam nga lu ñu am yónnee ko senegal waaw kon nag dañ leen di ñaanal yàlla ku ci fa nga ne yàlla yóbbu la xéwal ba nga mën a ñibbi si sax bàyyi foofu ñëw sa dëkk toog investir waaw parce que xam nga loo mu liggéey sa dëkk sax moo dàq ke dem feneen di leen bëggee xam nga gis nañ ni ñuy jàppalee làmb diaspora bi xam nga gis nañ seen taxawaay si làmb ñoom ñëpp waaw di leen bëggee cité bi nag xam nga li may wax rek di leen jéggalu ñoom ñëpp waaw di jaale suñu benn maman tamit fii dafa décédé vraiment di ko ñaanal yàlla xam nga yaay ñoom Pape Laye yaay yàlla xaaree ko àjjana àjjana fi daw si waaw di leen jégalu ñëpp mooy li ma lay wax rek bu combat amee coono ju dul jeex muy Cité Asecnas si Cité Marine xam nga Kasor xar yàlla ga Grand Yoff ñëpp gis nañ seen taxawaay niñ leen di sonalee asalem tamit 1 gis nañ seen taxawaay waaw Gueule Tapée gis nañ seen taxawaay ba Soumbédioune xam nga Medina waaw ñëpp daal buñ demee dañuy juum ba Fass Kër Ndiaye loo tam gis nañ seen taxawaay son nañ ci combat bi trop waaw ñu ngi leen di bëggee ñoom ñëpp waaw rëbës ak ñëpp daal yéen fu ne lañ may support Sénégal waaw defet bi ñop la metti waaw mais dañuy sante rek waaw di jégalu ñop di kontaan ci yow tam Babacar waaw amuñ sa fay waaw jaajeuf amna amna am naa contentement bu baax baax kon Cheikh Omar non la démé woon ah ak Dakar ak ti tey nag ñu ngi yoon fi nga xamné mom moy Cité asegna di encourager jeen di féliciter di félicité waat Sarko encore une fois lamb ni rek la daan ak daanu yaangi dégg ku baña a daanu Cheikh Omar bul béré ji. mais ku bëre yaay daanu yaay daan kon nag yaakaar naa ne li ko dese bëri na day doog a door dama naan carrière moom bu fekkee bi nga war a def la yow xaaju carrière bi xa maanaam demi bi commencé gooku kon defe naa li des sa carrière bëri na trop trop trop li ci des nag mooy takk dàll yi rek wàccaat ci géej gi ñime contact bi ñime entraînement yi ñime salle yi yaa ngi dégg gën a yokk xam-xam bi yaakaar naa loolu moo ci des parce que tamit am na ñoo xam ne tey say morom lañu ci làmb xeyna na niveau bi nga atteindre yexé kunfi fi lool lepp nak dogal suñu borom la ndax wax nañ ko léegi kiko ñëk daan egri fa la joggé won ñew daan ko Iba Mar Diop Ibulaay maa koy nuy di ziar tay kenn déggatu ko ci lamb té mo la ñëk daan bim lay daan jour bo mangi ngi tok loolu la vie est comme ça yalla na yalla def jam Cheikh Omar contane na di nuyu ñepp ñi nga xam ñu ngi sétane di nuyu les monteurs Amina mabo mang lay bëgge ci montage yi Demba mang lay bëgge di ñaan ñepp jam den wax benen yoon inshallah rabbi salariñ leer maam góor gi njaay sëtub maram jéen bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee jiin tuuti laa